nii nga xam ne noonu lañ ko commencé ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ko ci àggalee ci alhamdulilahi rabbil alamina ñu dund ba ànd ko ak suñu sët ak suñu sataat ndax liggéeyal Serigne Touba moom liggéeyal Serigne tubaa kenn du ci wàcc da ngay liggéeyal Serigne Touba ba suñ borom ñëw ak dogalam yàlla na yéex ñu nekk ay soxna doon ay ndaw te xam ni liggéeyal Serigne Touba rek ci lañuy jëlee ndamul tey ak lu ëllëg kon maa ngi ci soñ sama bopp leen ci soñ ñu fas ci yéene commencé tey fas ko yéene àggale kenn ku ci nekkee nag nga jàpp ni ñëw nga tey boo ëllëgee boo manqué na nga xalaat ni mbooloom yépp manqué na te boo jëlee ni mankat fas naa yéene samedi bu jot ma dem ca jumaa jam ak bis yenn ci topp yépp ni nga ko bëggee noonu la ko sëriñ bi maye ndax liggéeyal sëriñ Tuubaa moom dangay commencé rek waaye moom moo lay àggaleel te képp koo xam ne yaa ngi koy liggéeyal moo lay jox li nga koy liggéeyalee bàyyi la ak sa ak baax te fekk na lépp moom mooma kon ñu góorgóorlu ci bu baax képp koo xam ne ñëw nga tey fasal yéene ngant boo lay taxatee dagg tey ñëw ci bis bii na ko ñëpp nangu ba xam ne loolu ngant la bu kenn xaar kenn ku yeewooti sept na la fekk fii ci buntu jumaa ji boo fekkee ñu ubbi nga commencé boo fekkul ñu ubbi itam bala nga fee yàgg dara jëriñu dina la fekk ñu fas yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa te xam ne suñu tey ak suñu ëllëg suñu defaru tey gu ëllëg yëpp ci liggéey Sëriñ Tuubaa lañ koy jëlee ñu ngi leen di jégalu bu baax nag kàddu yi day kàddu ndigal waaye doonu luñ ma ne ndax wax dëgg yàlla wax moom taxuñu koo man waaye ñu ngi sant ñëpp rek képp koo xam ne soxna nga wala nga di góor yàlla ànd ñun liggéey bi ñu ngi lay sant di leen jaajëfal te am na ñoo xam ne démb rek lañ ko dégg ñu sol seen yére boole kook seen doole bàyyi seen yitte ñëw ñu fas yéene ànd di liggéey Sëriñ Tuubaa nañ ci sax dàkk te xam ne ci lañu jëlee jariñu tey ak ëllëg ñëpp rek képp ku fi teew rek naa la siyaar la di leen ñaanal jàmm ju bari te di ko sàkk si yéen. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp ñoo ngi leen di jox seen wàccuwaay di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu am fan wu gudd lool ak wér mu yàgg ci sunu kanam nu yàgg ci ginnaawam di wéye ndigalam te lépp lu sëriñ bi tere yàlla bu nu ci kenn fekk ñuy sant ak a jaajëfal waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñoo nu tàllal loxo tànnal nu bis woonu ci liggéeyub sëriñ Bàmba bii di setal jumaay Tuubaa ji war a jàpp ne sëriñ Tuubaa képp ku ko liggéeyal rek dalaa nar a defar wala mu nar laa fay kon ñun ñëpp war nañoo maase wax alhamdulilahi rabbil alamina ndax jumaay sëriñ Bàmba ji dañuy ne ci dëkk bi di ko romb di jublu soowu penku gànnaar ak saalum sama classe gi bu ñu rombee dañuy siyaare rek raay ci seenub jë man koo def weer wala ñaari weer yoo xam ne seen tànk bi dugg ci biir jumaay sëriñ Bàmba ji kon buñ ñu woo sàkkal nu bis muy samedi ji nenu sunu giirug dund samedi ju yàlla sàkk bu nu àndee set ak sell akuk laab na ñuy ñëw di setal jumaay sëriñ Bàmba ji doolee sant yàlla la sant yonent bi sant sëriñ Touba sant sunu yaari waajur ndax bëgg a liggéeyal sëriñ Touba taxu koo liggéeyal sëriñ bi moo lay tànn bool la ci ñi ko war a liggéeyal tax nga dog koo liggéeyal te sëriñ bi ku mu liggéey loo dalaa nar a fay nar laa defar fii ak fanu nu jëm kon ci turu soxna mbayan Jum sunu jëwrin ak waa ànd liggéeyal sëriñ Touba gépp fépp fuwaay ne ci dëkk bi te ñëw ci liggéey bi ak soxna Bintu Saar ak sunu mbokki lamsaar yi ak ñépp rek mbooloo mi nga xam ne daje nañ fi soxna Bintu Saar ak soxna Mbayang Jum ñoom ñiy jëwrin yi ñu ngi leen di sant di sant ajaratu Xadi Gey ak mbooloo mi nga xam ne yëpp ñëw nañ toog fii ndax ajaratu Khady Gueye boo gisee ma tudd ci aw turam daf noo yàggawoo ci liggéeyub sëriñ bàmba bii di setal jumaay Tuubaa waaye nag loo gis waxtu la am ak heure ba ko sunu borom di dogale xaj na dogal bi mooy doog a yegsi kon fokk nu jaare ci santaale ko ci di sant sëriñ jaw ma mi nga xam ne keroog ba waa jumaa ji toogee waxtaan war a wax ne dañoo bëgg a yokk mbooloo mi nga xam ne ñooy setal jumaay sëñ Bamba ji xelam dafa dem ci ñaari jàmbaari sëriñ Bamba ñaari liggéey liggéeyaa ko ni sëriñ Touba mooy soxna Bintu Sarr jaamu sëriñ Touba ca Lamsaar ak soxna Mbayang Jum di jàmbaari sëriñ bàmba ca Touba Daaru Xadim kër sëriñ Fàllu Mbàkke Jumaada kenn ku ne ci ñoom ñaar ñu wax la ne fépp foo am mbooloo ak koo xam ak koo dendal ak képp ku ngeen bokkal pas-pas na ngeen loon woo gaaw bu yàlla sàkk ngeen di setal jumaay sëñ bàmba ji ñoom nag wàcc nañ li des ci ñun ñi la dese ñëw benn gaawu ñëw ba ca tollantiku toog tuxut jumaa ji set képp koo xam ne mag ñi moom sam gaaw bu yàlla sàkk bu nu yewoo wér mën na noo ñëw ñi nga xam ne ay jeeg ju ndaw lañ ak ay jàng képp koo xam ne yàlla dogal na bisub gaaw bi ñëw te amoo ngànt boo xëyee na nga def war ba làpp jàpp ba sell laxasaa yu ñëw ñu liggéey ba sëriñ si wàcce ñu ñaanal ñu waaye jàpp leen ne daal képp koo xam ne ak fépp foo jóge ci dëkk bi ñëw fii te soxna Mbayang Jum soññoon la mi ngi lay sant di la gërëm te di la wax ne ay ca murit nee na nag liggéey bi suñu giirug dund la jëm du tey rek du suba rek du ginnaaw suba rek dañuy liggéey ba yàlla na yeex sunu borom soxla nu nu war a wàcc wuy ji ci penk jumaa ji ñun ay soxna ñaare sunum xel lu ko fëkk dafa yomb dañuy egsi commencé di waxtaan waxtaan yoo xam ne fa muy jublu xaj na du gën fii ci béréb bii nu nekk muy jumaay sañ Bàmba ji kon bu ñëwatee na ni moytu waxtaan yi te di ko bàyyi ba dellu ca kër ya comme mënta ñàkk bu mënta ñàkk na ni xaar bay dellu ca kër ya waaye bu jubbatee ci jumaa ji na ni wax sant yàlla sant yonent bi sant sëriñ Touba gémmiñ gu ne man na ko di liggéey ba ba ngay pare li ci dolli ko mooy nañuy organiser wu ndax xaj na ku jàng danga nab na bi tey da keneen ñëw balewaat ko nga gis fu ñu fomp ba jàll ñeneen toppaat fa di ko fomp loolu lépp yéexalul liggéey la waaye nag ku jàng nab na bi na ñuy organiser suñu bopp ba buñ dikkatee tànn soxna yi nga xam ne ñoom la seen at xaw a kawe nu jël bale yi ni ci kanam di bale ndax seen doole moo xaw a wàññiku sëriñ bi rek yéene moo leen andi bu ko defee ñi nga xam ne seen kàttan dool toll na ci ñu jël morso fubeere yi jël bant yi lépp loo xam ne soxna yi seen doole xaw a bale nañ ko ba mu set nu topp ci te def ko ay sàppe nga xam ne bu ñuy fubeere dañuy fubeere li ci sunu kanam jëm ci sunu ginnaaw lu nu romb mu set dellusiwaat du ko aaja te bu dajee danañ xam ne daj na waaye liggéey bi xam naa li ñuy doog a tàmbali la waaye danañ ko gën a nosaat ba teg ko ci yoon ci kàttanug yàlla ak mbaaxuk sëriñ bi. asalaamaaleykum mbooloo mi fi teew mi jottali ay kàddu yu gàtt rekk cant ko jóge jot soxna Bintu Saar mi. moom nag damaa mënta delloo dara la jóge ci moom waaye bàyyi Fall buy wax ci biir sang moom moom murtat la ak murtat la waaye ñoo ngi koy jégguloo soxna Bintu nee na mi ngi sant bu baax a baax a baax di gërëm bu baax a baax a baax di siyaar ñëpp njabootu sëriñ Touba gi fi teew ak mbokki Touba Lansar yi ak ñi nekk ci ginnaawam ñépp Lansar la ko dala ci sëriñ sa ba ci taalibe yi ak ñi mu bokkal liggéey bi di liggéeyab Sëriñ tubaab bi liggéey bi nag ki la ñuy nekk sunu dund ak sunu dee ndax murid moom benn yoon lay wàcce yàlla yéex murid du wàcc murid benn yoon rek lay wàcc dañoo fas yéene nag feddali sunu laxasaay dëgmal sëriñ bi ndax sëriñ bi rek a fi nekk ndey amu fi bàyyi amu fi benn garaat bu ne di takk pour yaakaar Sëriñ Tuubaa te doyloo ko booba garaat amul solo ci loolu rek lañ dund ci la ñuy dee bismillaahi mina seytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim ginnaaw sangu sang yi sallallahu alayhi ñoo ngi nuyu sun sang su baax si toog ñëpp di nuyu soxna Bintu Saar ak soxna Mbaye di rafetlu ni ngeen ñëwee tey am kontaan te ak mbégte lool wax dëgg yàlla di leen dollee soññaat di soññ suñ bopp di wax ne ah, ndokk bañ sëñ Touba tànnee di ñu liggéeyloo ndax sëriñ Touba kat ku nëtt dimbale du la liggéeyloo ndaxte nag suñu morom bi jigéen dong ñoo fi nekk te gënuñu leen ñu nekk ci politique bi ak di yoxe yeneen yoo xam ne bii lu yàlla gërëm du la kon nag bu nu sëñ Touba tànnee suñu jàmbaar taxut mbaax ak sëriñ bi kon dañ ko xamal suñu bopp bu baax te jàpp ko te téye ko di leen doolee dénkaat nag yéen ñi nga xam ne yéen a féete ndaw bu ngeen ñëwatee bu leen xaar soxna Bintu saar képp koo xam ne ndax liggéey Serigne Touba amul xaare su ngeen xëyee ku xëy na nga wut si jumaa ji bu gaawoo bul ne naa xaar soxna Bintu saar bu ne naa xaar soxna Mbayang ndax jëfi sëñ Bàmba kat lu waaye jëf yaa ko moom kon bu ngeen xëyatee ku fi jiitu na ñëw génne bagaas yi daal di tàngam ndoxam commencé te soo ñëwee nga commencé fa nga war a commencé commencé ci kaw comme fi leen waroon tey wàcc ci suuf bu ngeen ñëwee mboolem ñi nga xam ne ñoo féete mag ñu jox leen bale ñu jiitu ñi nga xam ne dañoo am kàttan topp ci ñoom ak morsa yi ñi féete gone di tuuri ndox yi ndax ndox yi itam dajee am solo ndax morsa yi bu tilimee foo jaar daanaka da nga fay bàyyi tër ba te morsa yi ngeen di ko am ñu koy saytu di ko xool sumb yi bu ci tilim kooka dem ne nañ ko tuuri bu ko defee ñu yenu ko dem tuuri ñu wax ñi gën a féete ndaw ñu féete ci organiser boobu ñuy tuuri ndox yi comme ni ñu leen ko doon wane tey bu tilim ñooña ñoo koy dem di tuuri indiwaat rootaan dox indiwaatal mag ñi nga xam ne bii ñoo leen ma féete mag yor morse di fomp ñi nga xam ne ñoo gën a féete mag yor bale yi jiitu di bale su ngeen ko defee lu ngeen romb rek day day day day day yéwén tey dana mel na ngeen ko bëggee ñu ñu amee ko nañ ko bëggee am ni ko sëriñ bi bëggee kon nag noo ngi sant bu baax di am kontaan te mbégte di leen ñaan liggéey bi sëriñ Touba bii ngeen tàmbale yal na ngeen ko yeggaleek jàmbar ki sëriñ Touba ba ci seeni sët seeni sëtaat nun ñëpp nu ànd ko lu nun ñëpp noo bokk bëgg-bëgg noo ànd Touba ca kanam noo ànd jumaay sëñ Touba kon loolu lépp sëñ Touba sëñ Touba la neex moo nuy liggéey loo mën teg ci waar bi yàlla buñ ko wàcc ba wàcc jaag barke sëñ Touba yàlla na yeex sët yéeg ñëpp ànd ko barke Seexul Xaddim jërë ngeen jëf mbokk yi fi teew ñu ngi leen nuyu bu baax a baax soxna yi am na ñenn ñi waajur lañ ñenn ñi ay mag ñenn ñi ay rakk ñu ngi leen siyaar bu baax a baax di leen ndokkeel tam bu baax a baax di leen dalal jàmm itam ci barab bu sell bii di leen ñaan itam suñu borom defal leen ci tawféex ci tàmbali gi ngeen tàmbali xanaa di wax rek war nañoo bokk wax alhamdulillah ñun ñi fi nekkoon ak yéen ñi ñu fekk si ndax yàlla baaxe nañu loo xam ne lu rëy la lu am solo ba ñu doonee ay murit nangu ko xam ko suñ xel ak suñ xol nekk ci ñu delloo njukkal Sëriñ Tuubaa xol bi ñu koy delloo njukkal moo ñu koy liggéeyal suñu ñaq ak suñu am walla sax mën naa wax na suñu lépp kon loolu jar na sant yàlla ndax yomb doon ne bëgg ko dana tax am dana ko tax am waaye ndimbalu sëriñ bi la doon ndimbalu suñu borom lay doon ak tawfeex sëñ bi kon moo tax alhamdulilahi rabbil alamin ñu wax ne nag fii ñu ñëw tey bëgg fee tàmbali suñu liggéey jëmale ko ci sëriñ bi baax na ñu xam fii mooy fan ndax dana yombal suñu nekkin fii dana yombal itam li ñu tax a jóg ñu war ko ñu mën koo am fii de mooy Touba fii ñu toog mooy Touba mag ñi xam histoire xam nañ ne fii mooy Touba kër gi Sëñ Touba rëddoon tudde ko Touba mooy si Sëñ Touba ba muy seet Touba fa defoon mbaar mooy fii ñu toog kon fii kuy seet Touba boo ñëwee fii ak fiitam mooy fan néeg boo xam ne boo doon seet suñu borom boo ko doon wër ci àdduna boo duggee fii dugg nga cib néegam nit koy wër mbir ku koy dugg cib néegam yàgg-yàgg dana fekk bokk kon fii néeg suñu borom la kuy seet suñu borom boo ñëwee fekk te ab murit suñu borom rek lay seet ndax sëñ Tuubaa murit mooy muritu laa ku bëgg yàlla di ko seet kon fii borom suñ borom la fii mooy fan fii mooy fi nga xam ne suñu yaakaar tey ëllëg suñu lépp doy ñu fii la ne kon fii li mu boole bari na man de gëm naa ne barab boo ko gënal ci kaw suuf xanaa ñaar yi nga xam ne amu ci pexe ndax suñu borom moo am lu mu ca wax ci alxuraan la amul pexe Makka ak Madina waaye feneen fu mu gënal ci àddina wala fu ko gën man jàpp ne amul fu mel noonu nag bu yàlla dogalee ñu ñëw fa seen fee liggéeyal kii suñu yaakaar tey ëllëg yaakaaruñu lenn loolu moom te mu mat ko sëkk matal sëkk war nañoo xam fii fan la jox ko cër comme ni ko jaw waxee worma ji ñu sàmmoonteeg moom bu baax baax baax loolu mooy tax liñ fi wut si ñu am ko te duñ fi loroo ñaari jege la nag dara tax laa jóg nga di ko wuti boo sañoon am ko waaye boo xamul da koy wutee walla xamul foofu la mu laaj loolu mën na la jaax rek yàlla na ci yàlla musal te sëñ bi dox ñu am diggante loolu lor warma ji nag la ci jiitu mooy man mii di ñëw jumaa yi ngir liggéey seetal ko wala lu lu ma ci mën a liggéey naa fexe ba warmaal sama jëm ci cet ci col ak ci doxin ak ci waxin wax nañ ko fii léegi fii laajut yenn wax yi wax ci kaw sax laaj ko même bu fekkee da ngay wax farata sax wax ci kaw laaj ko wante mu nag yeneen waxtaan te itam waxtaan itam andi wu fi kenn yaakaar naa liggéey moo fi war a andi kon bu ñëwee ñu nekk ci li ñu war a nekk rek ba mu jeex kilifa kilifa gi fi nekk ñaan ñu tasaaroo ba ëllëg. way ci dégg sax ci jaw na ko léegi tàmbali yomb na waaye tàmbali nag mën naa xumb lool waaye sëñ bii daa am fulla la suñ borom daa am fulla la wuñ ne ay ci ñëpp dañ naan kër kër kër kër waaye day segg de day segg de nañ fexe nag buy segg ñim fi bàyyi nañ fexe bu bokk sëriñ bi nag moom noppi na ñun ñoo ci des li ñuy def defoo defaluñ ko ko lenn luñ ko mën a defal bu ko amal njariñ amut lépp lu ñuy def suñ bopp la jël ku doon murit yow lay ku ko liggéeyal yow lay jëriñ ku doon leneen yow lay sëñ bii la muy am suñu borom am na ko la muy am ci yonent bi am na ko ñun ñoo amagut dara te mënuñoo ñàkk dara di ko wut si ci moom tam am ko kon nañ yokk paseer bi ak jom bi ak rafetelu nu wutin wi rafetelu wutin wi dana tax li ñuy wut gën a yomb dellu tam di waxaat alhamdulilah ngir yéen soxna yi war ngeen gën a santaat yàlla bu baax ndax mu mel ni ba àddina sosoo ba nëga lépp lu baax lu ñuy def boo xoolee jigéen ñoo cee man kon loolu ab soññee la bu baax lislaam jii de jigéen moo ci njëkk joxe bakkanam ngir mu taxaw murit gii de jigéen ñi ci njëkk joxe bakkanam soxna Aminta Lo murit gii de liggéey buñ bi ko téye jigéen a ko def buñ soxna jaara jumaa jii de ñi ci gën a ràññeeku ci liggéey jigéen nañu tudd muy soxna fan njaay yàlla xam naa ñu bari sax dañ ko jàppewoon malaaka ndax lam daan yano di jóge gaaru ci ay sima bari bu mu bari jàpp nañ ne doomu adama war at waxantum laa jigéen jumaa ji yemalewu ko woon ak len len len daanañu seeral lu rëy rëy bu ñu masaan romb fii ñuy bare mu ni yéen Sëñ moo leen tànnal boppam Sëñ Tuubaa mooy am lu ne i doomi soxna yu toll ni yéen i mbusoo wekki mbàkk si mbàkk yi futtiku di bare te bu leer ma ne seen néegi bopp sax ku leen ko bëgg bare loo ngeen bañ te muy di wér kon nag ku yàlla taw feexeel nga ñëw fii doon jigéen jigéen nag daa am na ko yàlla dinde fii itam am na ko yàlla soxlaa ku fi nekk kon ñu bàyyi xel loolu bu baax ci laab gi ak yiw gi ak col gi bu baax ci fii ndax li feneen di nangu fii moom da ko nangu di feneen nangu ci dëkk bi fii moom nangu fii moom muuru ba ne man lañ wax ndànk te am pëseef ci li ngay def la nangu nanguwut leneen bu ko defee nag li ñu war a bàyyi xel ci liggéey bi mooy fii de menn xëyam mennum xëyum jumaa ji fii nga setal wecc na ay xëy ati at ci feneen ci biir murit te loolu ko xam dara xam ko ndax dénkaan bi sëriñ bi mujj dénkaane tam bokk ci yi ko ñor bëgg ñu ku ko ci taxawal fii ci la bokk wala moo ci jiitu tam ñor ko lool doomu sëñ Tuubaa yépp mu ñoroon leen kenn ku ne ba toogee bala ngaa def dara danga naan naa def dara jumaa ji ba noppi sëñ Alaaji Baara bi mu toogee xalifa ñu koy wax ay liggéey dafa wax ne nañ dem ci jumaa ji seetal ma fa lu mu fa mën a def mu tàmbalee ko bala maa def leneen feneen kon fii dafa nekk ne liggéey yi ñu liggéey sëriñ moom fii da cee nekk ne le yoonu murit nag ak liggéey sëriñ bari na ay waar waar yépp am solo waaye nag wii moo ci jiitu waaye nag nañ ko boole yi ci desit ndax lu baax moom lu mu gën a baax gën a baax lu mu gën a bari gën a baax te jamono ji doy na waar xat na te kañ la kon nañ profitoo gaawantu def liñ ci mën a def ba def ci loo xam ne jàppoon nañ ne xëcc ci dund ndax jamono ji doy na waar de saa su ne nga dégg lu yéeme nit kuy dox ba mu yàgg ñu ne daan na fii te kii de ñoo nekkoon fii démb kii de wax na ma lii démb tey it day gën a yokk te foofa itam dara doyu fa te yëf yaa ngi ne gàññ fii yuñ fa mën a yóbbaale dañ gaaw tibb ëmb def ci saak def ci kol luñ mën a duy rek dañ ko gaaw duy njëkkante dañuy njëkkante yi fi xat na te wàccaayu gàtt na kon nag nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax gën cee bàyyi xel bu baax a baax ngeen xam fii ngeen ñëw tey bu baax a baax xam itam li ngeen fii def lu mu leen mën a jural ci lu baax te fas yéene nañ itam ànd ko ak yéen lépp lu leen di tax a may li leen tax a jóg danañ ko def incha allah ndax loolu moo ñu fi bàyyi ñu ngi leen taral loxo bu baax di leen gën a dénkaan itam jëwriñ yi ngeen fi fekk soxna yi ngeen fi fekk ngeen gën a jaxasook ñoom gën a jaxasoo ndax sëriñ bi waxoon na ne ñaar ñuy wut yàlla bu ñu amee seen diggante ñugu ñugu ñugu rek am na ci ko wax dëgg kon ñun ñëpp nañu fexe bay wax dëgg ci li ñu tax a jóg nañu fexe bay wax dëgg ci li ñu tax a jóg mooy lan suñ moroom bi ñu ko seqal nañ ko jàpp ngir yàlla ngir sëñ bi ngir bëgg-bëgg bii ñu bokk liggéey bii ñu bokk ndax lu kenn man ñaar ko man de moo tax ñu sàkku ngeen ñëw jàpp ci liggéey bi mu gën a yaatu bu doon loolu mën nañ cee nekk rek di lag-lay waaye gën gën a bëgg bëgg mu gën a baax gën a yaatu yiw yi gën a bari àgg ci ñépp moo tax ñu koy yaatal te fii itam wàllu ku ne buñ sañoon itam kenn ku ne jël si sa wàll may bàyyi waale xel tuuti nag lu mën a xew ginnaaw ay soxna lañ juñoon naa ko biir soxna am na nu ko yàlla bindee bu tollee ci yenn at yi lu mu xéer xéer xéer ci liggéey bi bu yàlla dogalee mu toll ci jamono yooyu na toog ba jamono yooyu weesu mu ñëw toogaay booba firiwut na ñëwut waaye ñi ñëw ñëwaale nañ ko te lam defit tuyaabu jëpp ju ji ñii am moom la dana ko ci am waaye bu xiree ba ñëw dana yàq lu munta defal ndax ku toll foofu moom lislaam da koy tere jumaa ji da koy tere jumaa te bu fi ñëwee dana fi am bàkkaar kuy wut lu baax nag waroo ko xooj walla nga ci dugal leneen lu ci bokk am soow dañ fexe muy weex rek soow moom lu ci ñuul lu ne dañ koy seet sànni kon nag lu ñu xir xir xir dañ koy teg ci fi mu war a tegu rek jaar la ko fi mu war a jaar kon maa ngi leen di ndokkeel ñëpp di leen gën a daral jàmm di leen santaat bu baax a baax di ñaan itam liggéey bii ñu liggéey ñu day ci ngërëmu sëriñ bi te bañ cee gis suñu bopp bañ cee naagu benn yoon. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xam na eh, mboolem luñ jàppoon bëggoon koo wax natoon ko suñu xol ak ci suñu xel. lépp suñu Abdul Ahad wax na ko kon dara ramatu ci dolli te lim wax lenn rek a ca des mooy nañ ko dégg te jëfe ko buñ ko déggee jariñoo ko rek njariñ rek lañ ciy am ginnaaw ne naa ci wax benn kàddu rek laa ciy dellu te ñoom ñëpp wax nañ ko waaye faaw moo waxaat ko ndax baamu day wone amul njariñu lañuy ñuy baamu baamu bari day bari day wone njariñul lañuy ñuy baamu dañuy wax ne tur yu bari day firi màggaayu la ñuy tudd loola mooy Sëñ Tuubaa dafa waxoon ñeent mooy li am njariñ ñeent yéene lu baax wax lu baax jëf lu baax ak sax ca nag dàkk surtout bu mujj boobu ak sax ca niyatul xayri wa fialul xayri wa xawlul xayri wa dawaamu alayha yéene lu baax wax lu baax jëf lu baax waaye nag te sax ja kon tàmbale nañ lu baax yéene nañ lu baax ba noppi ndax yéene moo fi indi ñépp am nañ payu yéene wax nañu lu baax ndax wax lu baax moo dajale mbooloo mi wax leen lu baax ñoo xam ne yéene nañ leen lu baax wax leen ko moo leen fi indi xëy nañu tey jii jëf lu baax mooy lu baax loo leen ñu woon te waxoon leen ko def nañ ko lu te des mooy fexe ba am sax lu mu baax baax lu mu rafet rafet lu mu am am njariñ bu saxu njariñ la du matale kon li sëñ Abdoulaye Diaw wax si Abdou Lahad mi wax ko mooy sax gi rek mooy am njariñ beneen fàttali bi muy fàttali mooy sëñ wax na ko léegi lu ma sa am ci lu baax rek jigéen ca man islaam su ma yem ci njëkk faatu jigéen la yoonu murit bii jigéen ki ci njëkk faatu joxe ba kanam soo aminte loo def ko ci bokk ñu jiitu bu jiituwul armeeli Tuubaa yi itam yaakaar naa ci ñi ci jiitu la bokk jigéen la yéen ñépp dégg ngeen histoire boobu Cheikh wax na ko léegi kitaabu yoonu murit ba tax ci ji ñëpp di ko tiitaroo soxna jaaratullaahi moom da cee boole jigéen la waaye jigéen ju ndaw la woon tey la wax maam ndax ay doomam màgg nañ ba ami sën waaye ba mu fiy nekk ñaan ñi sax matu leen woon yaay ndax fanweer at ak ñett képp la dund li jëf lépp ci la ko jëf kon yàgg amul solo barkeel moo am solo kon nañ góorgóorlu bu baax am na nag loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko wax dafa wax ne moo ndax dangeen ngeen a yaakaar ne da ngeen di taxaw ne ñun day gëm nañu yàlla danañ ko topp danañ def nangam dañ def nangam rek yaay la bàyyi leen di leen seetaan mu ne déedéet faw yàlla dana leen teg nattu xool ba xam lii ngeen di wax dëgg la ci yéen wala du dëgg ci yéen sëñ laay waxoon na ko jotaay bi njëkk ba gis ngeen lii ngeen tàmbali tey jii gàllankoor yu bari dana ci am gàllankoor yu bari na ci am da ngeen jóg bëgg a ñëw ñu ne leen diw daa am ngente tey da jóg bëgg a ñëw ñu ne leen diw daa amul ceet tey da ngeen jóg bëgg a ñëw ñu ne nattub diw ba da ngeen jóg bëgg a ñëw am gan gu ñëw toog di wax lu ñor ak lu ñorul façon gàllankoor bu nekk dana am ngir yàqal leen liggéey bii waaye na ngeen rek waaye na ngeen fexe ba te seytaane ba yooyu gàllankoor yépp bañ leen mën a gàllankoor loolu mooy li am solo kon bu ñu yéenee lu baax jëf lu baax sax ci lu baax moytu lépp lu yàq lu baax mën nañoo am ngërëmul tey am ngërëmul ëllëg ñu fàttaliwaat ba tey li sëñ Abdou wax léegi mooy wax na ko nee fii mooy Tuuba sëñ Tuuba bi mu sañcee fii daf fee sañcoon ñetti kër walla ñeenti kër gan mu tudde ko Tuuba moo nekk fii ñu nekk nii genn gi mu tudde ko daarul xudduus mooy bayti gii ngeen gis tey genn gi mu tudde ko daarul rahmaan mooy kër sëriñ Suhaybu bi gii geneen gi mu tudde ko daarul minan mooy kër sëriñ Basiru gii yépp kër sëriñ Tuubaa la woon waaye ñoo ñépp nag ay bànqaas la woon ci Tuubaa nekk daa am lu bu daan doyee moo doonoon kër gi moo tax gis ngeen bi mu ñibbisi Tuubaa la ñibbisi mi ngi nii ci seen wet kon li sëñ wax léegi lépp loo xam ne comme doonoon ci noonu bu ñu ne woon sëñ baa ngi toog ci kanam doo ko def mbaa doo ko wax mbaa doo ko melowoo xamal ne boo duggee ci lii ëtt pénc mii waratoo mel noona waratoo wax loola waratoo jëf loola kon lim ma doon wax léegi ci waxi mbóosóor mbaa jëfi mbóosóor mbaa melowoo woo wërta mel mbaa yàlla teg la ngant te yàlla moo bindee noonu nit te suñ borom moo waxoon ni nit ki li ko yàlla bindee da ko war a nangu waaye waru ko daw waru ko nëpp waru ko bàyyi euh, gannaawal ku yàlla teg ngant ngant yàggul muñal danga nga am tiyaaba ju toll nga dem julli li muy màgg-màgg ku yàlla teg ngànt dala koy teggit ba ngànt la jeex woor dañ naan la da dog ba ngànt la jeex noonu ñu la ko teree tere julli teree la ko woor nee nañ la teree dugg jumaa rawatina jumaa suñu Tuubaa ji kon ku yàlla indi ci moom ngànt yàggul na muñ ña ñëw ñëwaaleel ko yéene jëm àndal dana tax tiyaaba ju ñu fi jëf wàllam dana ko ci fekk beneen bi jëlee saat te ñu dolli damay commentaire rek ndax li amata wax lépp waxoon nañ ko sëñ Ablaay waxoon na ko sëñ Ablaay waxoon na ko mooy fa inna xusna al fi'li fi ikmaalihi jëf balaa rafet daa fekk dafa mat lam war a mat bu ñëwee nañ góorgóorlu ba liñ fi war a def nañ ko def loolu nag la koy maye soxna Xadi wax na ko soxna Mbaye wax na ko ñeneen ñu njëkk yoxe ñëpp wax na ko mooy lu mbooloo mi bari bari bari bari bari te organisé wu wuñ mën nañ fay yàgg waaye duñ fi def lu am njariñ da ngay bale ba noppi keneen ñëw balewaat ci di balewaat ci kawam baa nga fopp ba noppi keneen ñëw di fampaat ci kawam su mbooloo bi génnee nañu tas ku ne ne ci dara bala waxtu yi néew lépp ak waaye bu ñu dajaloo ci yenn benn barab rek ñëpp nekkandoo fenn mën nañ fa yàgg te résultat yooyu du bari di wax kon nag euh, xanaa dañoo ma yéene woon ma ma am tiyaabay soññee waaye li ma doon wax suñu kilifa kii ñu seqal liggéey bi di sëñ Abdou Lahad wax na ko te loo ci dolli rek day mën ne danga koy xajamal kon nag yàlla na ni yàlla nanu yàlla nanu sëñ suñ borom nangul yàlla na sëñ Tuubaa gërëm liggéey bi yàlla na suñ borom may wér ak kàttan guñ ko mën a defee niñ ko bëggee yàlla na suñ boroom may xéewal yu yaatu njaboot gi nga xam ne moom moom la ñu bàyyi gannaaw ci kër yi ak ñi nekk ci bari bi liggéeyukaay yi yàlla na suñ boroom yàlla nañ leen suñu borom taxawu te taxawal nu leen te defal leen lu kawe njort ci barke Cheikhul Khadim ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wal tudxil al muslih fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadi al wafi